fond fond fond fond politique dama koy supprimer nga dégg ñu ne waaye eh, éthiopiste la léegi nu muy def suy dem ci ci ci ci événement religieux nu muy def moo tax ci sama téere par exemple dama ne gis nga relation diggante état ak diine dañ ko war a institutionnaliser budget bi buñ koy voté ñun ñëpp euh, Sénégal réew gëm-gëm la kuy catholique kuy julit ci biir julit ñi ku nekk li wala nekk li mais Sénégal mooy réew gëm-gëm mhm. même ñi nga xam ne gëmuñu diine yooyu sax euh, peut-être ay animiste lañ wala lénen ak leneen gëm-gëm la ci ñom mhm. donc suñu ki dañ naan budget culte nangam la suñu né 100 milliards la ci année par exemple sur un budget de 3000 milliards ou de truc ñu créer ben institution bo xamné lool rek moy rôle so démé demee Maroc da ngay fekk ben ministère bu ñuy tuddee ministère du Habous lool moy rôle nga xamné dañ naan budget baa ngi nii moom nag mooy toog def répartition bi. lii war na dem ci tabax ay ay daara ki ay ay ay ay jàngukaay diine lii war na dem ci yenn événement yi moo xam màggal moo xam gàmm moo xam lii lii war na dem ci euh, nu mu tudd euh, réfectionner wala tabax les lieux de culte mais mu doon lu transparent ba pare ñu delloo ko assemblée nationale voté loi de règlement ñu ne dërëm bu ne dugg na fi mu waroon dugg mais président de la république du cëram mu yor ay valise xaalis di dem. di loolu sax ger lay gën nirool mhm. di kilifa gu nekk mu woo la naan la jàppal ci léegi nangam nangam ci naan jotumaa kii naan jot naa loolu doyadal diine la tuutal diine la mais su dee xaalisu askan wi la te askan wi gën a financer culte am mhm. dafa war a jaar fii leneen di jaar ni askan bëggee faju ni mu bëggee lekk ba suur ni mu bëggee ay doomam jàng noonu la bëggee jaamu yàlla kon loolu état bi moo war a jël responsabilité ñu budgétiser comme lépp mhm. donc loolu parenthèse woon léegi nag